vite fait ñu ràññee ko ci crème boo xam ni kat maanaam boo ko defee sa yaram yooyu duñu la laal ràññee ko ci cuuraay boo xam ni day dàq yooyu ràññee ko it ci ñaari insecticide yoo xam ni fu ñu gis ay gunóor ak mbóot rey ko ràññee ko it ci puudaru mbóot boo xam ni suy mu ne ngalañ waaye it ñu daal di am pat dentifrice am boos kon laa gamme vite fait moo leen di may waaju baax yeeway samba he adama borom sangal kam kamu. baax jeego 52 aja xajul ci rew mangi kenn du yow lan ni <laughs> nga def diko xeb rek yow bo defé tay baas gor ñu yuux nga fant gor ñu yuux nga ñu yuux may ma ay gisuma sa pisa ma eh ah lool nak dina la ubbi eh. <laughs> lo def rek ta nak man na am sens de man na am sens de sens fu ne lay joggé wa man na faut jamais dire non la sax jour yi sax dernier minute dañ ci bi prolongation nit jël na ci coupe la dang ma xamul rek sans kese la mais ci lone sante ah ada dal dal dal daal. doole doxal jàmm de. ada da rek. macha allah. Mhm. yal na la yàlla defal ça va ça va très bien. macha allah dama fay rombu waaw gis luma intéressé lool. moy moy huile de massage bee muy seen. bettu bo woon. jotali ma ci ben ma xol lo ta. wallaahi mi ngi nii. macha allah mi ngi nii. Ah. manta baa ngi nii fi yaram lu mu ñagas ñagas. fu mu hmm. fekk coono ak hmm. luy ñagas ak lu ñaan dina dem ak du dem. Hmm. laal ko fa seet. wax man bi musuma ko utiliser de. la la la bi la jeg ji wër. mant mi bu mant baa ngi tëj réew mi. mant bi ma xam nga dafa am bax bax han yi bëgg na bi. yi def fi ne. maa xam nga ni mant bi day dugg ci yàq. han dego ma de. cey cey professeur. waaw cey professeur professeur. gis nga li ma sa ci wax la ci. waaw. dara ma defaat ni ay lay la la. ji waaw boo leen demoon liggéey ah. ba ma xam da nga xale yi ba am benn sang rek xam man sang dafa dugg sa da nga bëgg sang nag xaw lan la dama koo bëgg bëgg nga de nga ñëw ba ma la lépp sama néeg nga koy bàyyi dem eh, sama ma bëgg ko lool allah gis sëñ bi sëñ bi dina la yéex wutal wujju ban sëñ sëñ bi nga génn gaam kooku ko ay may nga ko waxal ay yow mi aada yow mi yow tam lan ko Dil del téye ñu est-ce que ci mën la xool nga ma. waaw waaw waaw waaw waaw. baax xool ma la tamit ñoom tamit parfois dañuy xaw a ñàkk sens daal. man mérité naa lii. bu ma tudd tuuram sax ndax tellement que dama koo xeeb. junni waaw. junni daf maa yor. alayhi salaam fi mu toog. waaw kii neex na lool. xëy na ci li bokk. ah doo doo boo ma joxul waaw joxoo ma waaw xanaa nga war maa jox ci ma bi baax. laay dëgg la laay dëgg la aada méritoo nga ko nag. dëgg neexut te aada. Ah, ak fi réew mi tool. ponk la la a yor de. da ngay laaj ñu la mën a yor. gendarme hmm. yi wala militaire yi nekk bango ak saa pour yow am na tane la mën a yor. Eh, eh, eh, doo ci laalee bango. waaw waaw baax na comme lii euh, mosuma koo essayé. waaw ma ngi koy yóbbu après dinaa la ko soobee yàlla dégg on se connaît n'y a pas ngi soog a non amul problème day baax day Ada. yee baax maa ngi yoo ñu tegal sa loxo boobu. léeg du yàgg jëkkër ak am sensu jëkkër waaye du yàgg góor bi mooy juróom benn lu leen du sëyam jàkk lañ ko may nañ ko ak rafetoon ab koy te mi ngi ñaaw sax wala karam gaa commencé rasta xamu ci dara dënn bi wàcc na ginnaaw gaa ngi na mbasar man ni nafa ko def 1000 francs yàlla ak rafetoon